Euh, tey dama ñëw ànd ak euh, équipe bi nga xam ne moom laay liggéeyal euh, parce que ñetti weer ci ginnaaw dañoo daje woon Dakar en marge de la table ronde sur le défi de Bon, ma wax ko ni il faut que ñun ñu toog waxtaan parce que ñaari réew yi muy Sénégal ak Gambie ñaari réew yoo xam ne sont intimement liés par l'histoire et par la géographie su fekkente ne euh, am na Sumbu Sénégal war nañ ko mëna sumbu euh, notamment lu nous euh, trafic illicite de bois manam, bi dem di jaay nous ngi am nous Dakar nañu ci COP 25 à Madrid tok nañu man ak ñom ñu waxtaan ci date pour ma pour indi ñi nga xam ne ñooy techniciens experts yi nga xam ne ñoo nekk ministère de l'environnement ak seeni experts pour ñu toog euh, saytu euh, benn protocole bi nga xam ne signé woon nañ ko en 2017 le 28 avril euh, pour seet lan protocole boobu lan lañ ci jot a def ak lan lañ ci jotul def ñu évaluer ko bi ñu évaluer protocole boobu am na ay points yoo xam ne gis nañ ni commencé nañ ko mais am na yu bëri yoo xam ne demul moo tax ñu def li nga xam ne moom la ñu tuddee plan d'action euh, bi nga xam ne euh, dafay euh, décrire ay points yoo xam ne ñu ngi ci protocole bi en mettant l'action par des actions actions acteurs et des délais donc loolu yaakaar naa ni am na solo trop beneen mbir mi keroog bi ñu dajee nee na ma incha allah dinañu boole boole suñu doole pour xeex xex bi nak euh, bu amé Sénégal té amul biir Gambie bu amé biir Gambie té amul Sénégal mënul mënul mënul soti lolu motax ñun euh, au niveau du Sénégal dañu engagé xeex euh, suñu ndaje nak tay yemul rek ci li nga xamné mom moy mooy trafic de bois bi parce que demb bi may joggé Sénégal ñu ngi continuer ci processus bi nga xamné moy jox Sénégal benen loi bu bess moy loi sur le plastique euh, loi sur le plastique bu fekkente ne aussi euh, ñun ñaar euh, déggo nañ ci mën nañ ko xeex efficacement parce que mën na am ñuy joggé fi di dugal plastique biir Sénégal mu am ñu joggé Sénégal peut-être di dugal plastique biir Gambie su fekkente ne ñun ñaar ñëpp déggo nañu

Ben peuple euh, nous sommes liés intimement liés par l'histoire et par la géographie donc lolu euh, motax ñu parce que lëkkaloo bi déjà feulé ci kaw euh, son excellence le président de la république ak frère euh, le président euh, son excellence le président Adama Barrow donc l'IDES moi ici souffre aussi nous dañu le a euh, coordonner liguer ensemble pour relever les défis ak atteindre l'objectif yi nga xam ne moom comme objectif Nous avons yaakaar naa ni nekk na lu am solo tay ñu ngi Sénégal avec beaucoup de d'enthousiasme ak contenté bu bu wér parce que nous ñu fi Euh, leeral na euh, sunu xeex bi nga xam ne moom lañ dégmal euh, dinañ ko gagné incha allah bu soobee yàlla.